jigéen ñi fii ci daara yi maam jaara ji nekkee ci Poroxaan ndongo yi bër maanaam jël vacances ñu door fi ay chantier yu mag fédération daayira maam jaara bi nekk ci dakaar ci njiital soxna maam jaara Mbacke bintu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacke Bachir ñoo fas yéene bâtiment bi ngeen jàkkaar lool nga xam ne dëkkuwaayub jàngalekat yu jigéen ñi la woon ak directrice des études bi ñu fas yéene ko yëkkati teg beneen étage ci kawam. ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. man la Mamadou Seck euh, di directeur technique entreprise Touba Kayor euh, ñu ñëwoon fii si daara soxna jaara bi pour ñëw ci ay travaux yoo xam ne dañu ko daara waa daayira bi ñoo ñu ko jox pour ñu mën a def ay ay travaux ci ci ci ci Porokhane loolu moo ñu moo fi moo ñu fi indi mooy suñu teewaay. travaux yi première étape bi daara ji nga xam ni moom moo nekk ci daara jigéen ñi moom la ñu war a yëkkataat beneen ci kaw. beneen niveau ci kaw pour mu gën a daara ji loolu moom mooy première étape bi. liggéey bi ñu ngi ko door ci talaata ji dëppoog le 3 août 2021 ci ndigalul Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides équipe yi ñëw bàyyeekoo dakaar fas yéene soobu ci liggéey bi. waaw tey jii ci talaata bi la ñuy ñëw démb la ñu ñëw tey talaata bi ñëw ñoo commencé équipe bi nag mi ngi en place commencé nañu aj birig yi commencé nañu génne dimension plan yi pour poto yi. ñoo ngi koy commencé di di creuser ferrailleurs yi ñoo ngi nii di jëm pour mën a commencé defar poto yi ci démarrage la nekk pour ci journée bi bala ngoon ñu mën a yëkkati au moins benn benn benn partie suba gi ñu mën a enchaîner pour pour pour continuer travaux yi. waaw benn niveau la ñu waxagum premier temps moom la ñu ko war def benn niveau première. liggéey bi nag bu mucc ayib lañ ko fas yéenee def espace bi toll ci 780 mètres carrés yoo xam ne dañu ko war a yëkkati ci délai ñaari weer liggéey bi nag du yomb waaye entrepreneur bi nee na dina ci def kéemtalaay kàttanam. waaw liggéey bi ñoo ko fas liggéey ci liggéey ci amin bu bu bu gaaw parce que ñoom ñi ñu jox liggéey bi dañ ko yàkkamti bien vrai que temps bi xat na mais dinañ def le maximum. peut-être délai deux mois la ñu wax mais du pour mu possible dina jafe mais dinañ fexe tout nag def le maximum ba nga xam ni euh, bon def nañu li nga xam ne moo la war def parce que travaux bi du travaux bu ndaw parce que 780 mètres carrés war a élever pour nga jëkkër ko ci deux mais dañuy teg équipe boo xam ne daal dañ def le maximum ba nga xam ni même bu ko dépassé tamit dañ xam ni carrément ñun ñi def nañ li nga xam ne moo la ñu war def parce entreprise bi tamit chaque fois liggéey bu ñu mënti engagé tamit yàlla dimbali nañu ba ñoo ngi koy liggéey à temps lépp loo xam ne jumtukaay la fédération daayira Maam Jaara bi waajal nañu ko indi ko fii ci daara ji ngir liggéey bi bañ a sooxe seen saa. waaw côté jumtukaay lépp lu bâtiment bi waaj laaj waajal nañ ko fekk nañ ko fii matériel yëpp euh, ñëw na à temps bant yi yi nga xam ne moom moo des mu ngi sur mu ngi euh, woon nañu léegi ni ma chargé nañ ko mu ngi ñëw waa daayira bi moom vraiment lépp loo xam ne waxoon nañu ko. ci matériel bi ñu ñëwee fekk nañ ko fi ñun tamit équipe bi tamit li muy xat-xat ñëw nañu à temps ñeneen ñaa ngi ci yoon bi sax di ñëw pour mu gën a mu gën a améliorer vraiment li mu ko ma débuté nii bu ko borom continuer nii yàlla dimbañ ci yaakaar naa ne dinañ ko mën a jàllale si jàmm daal yéene gi ñu ci am laa ci am liggéey bi ñu ci am la ci am taalibe bi ñu doon laa doon Pastef bi ñu ci am laa ci laa am te bëgg naa tamit du yem fii ndax bëgg naa ni ma ci duggee nii ñu ñëpp mu satisfaire ñu ba ëllëg ci biir ñu mën a am nekk ci yeneen yeneen travaux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 ñu ngi nuyu soxna maam jaara mu Seex Mamadu Muntaxa mi ji tey ñu ñëw teewe si woon tàmbali bi ngir jëmmal ko bañ mën a tàmbali liggéey bi liggéey bi nag eh, ñi nga xam ne si ñooy jàngale ñu soxna Maawa dem ak ñu seq njàng mi mooy fi ñu dëkke woon liggéey bu rëy bu ñu sumboon war ko fee def muy dortoir yoo xam ne si fi la élèves yi war di noppaloo bu ñu wàccee waaye ñu bëggoon a njëkk a tàmbali fi nga xam ne si fi la sonn oo ñoom dëkkoon ngir yeesalaat ko dolliwaat ko ba mu gën a ñoŋ ba mu gën a aw yoon ndax ki nga xam ne si ñooy xamal gone yi bu ñu nekkee fu dal foo xam ne si mel na na mu war a mel ànd dal ci lay gën a a amek daal ci ngir xamal gone yooyu li ñu war a xam kon alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di nuyu soxna si ak ñi àndal liggéey bi ñëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp di nuyu mbokki jullit yëpp sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di ko doole sant di doole sant sëñ Tuubaa ndax lii jëf ju rëy rëy rëy la ju rëy la kon bu ñu ñëwee tey ngir teewe fekke si tàmbali bi dañ koy sant yàlla di ko sant soxna Jaara mi nga xam ne si moo liggéey bi te boole ñu ci bëgg bëggoon ñu ñëw fekk si tàmbale bi kon dañuy soññee rek soññee gi dañ ci njëkki suñu bopp njëkk ci dolli ci mbokk taalibe yi nga xam ne si ñoom la bokkal liggéey bi ak ñi nga xam ne si dañuy soppee soxna jaara ak fuñ ñu mën a nekk ndax liggéeyal soxna jaara jàpp naa ne kenn ku nekk war na la kenn ku nekk bëgg nga ko kon lii occasion la boo xam ne si bu fi soxna jaara nekkoon woote woon ab tool kenn ku ne da nga bëgg a bàyyi la nga xam ne si nekk nga ca nga dem liggéeyali ko kon bu ñu ko taxawale loo xam ne si mooy li ko gën a loon ci loolu la nekkoon ay waajuram ci loolu lañ nekkoon moom ci loolu la nekkoon muy jàng ak jàngale kon loolu mooy ab toolam kon bu ñu ko sosalee loo xam ne si ab liggéey la ku sopp soxna jaara wala nga bëgg ko war nga cee a dugal sa loxo bu baax a baax waaye nag soxna jaara mosuñu taxawaayam ak yitteem ak pëseefam ràññee nañ ko bu baax a baax waajuram Cheikh Mamadou Taxa ràññee na ko ñi waa daara ji ràññee nañ ko ñi mu àndal ràññee nañ ko bu baax a baax kon dañu soññ ñi nga xam ne si ñoom la àndal bokk liggéey bi kenn ku nekk nga xam ne la la ca war moo ko ca war la ko ca war moom moo la ca war kon ñu def ko yitte def def yokk ci pëseef taxaw ci bu baax a baax a baax ndax lii yéene la ju rëy rëy joo xam ne si fa muy àgg kenn xamu kenn xamu ko te ko ci dugal sa loxo ku ne doo ko rëcc fii doo ko rëcc ëllëg ndax liggéeyal soxna jaara mooy liggéeyal sëriñ Touba moom waxoon na ko moom booba soxna jaara dana la fay sëriñ bi fay la yonent bi fay la suñ borom fay la mu ñeenti pay lay doon kon ñu ngi soññ mbokki taalibe bi yëpp mooy ñu bokk ci liggéeyu soxna jaara mu suñu taxaa bi muy fédération bi ak ñi nga xam ne si bokkuñ ci nekk feneen di ay mbokki jullit wala ay mbokki taalibe ku ci mën a dugal sa loxo ku ci mën a jàpp ak noo ci mën a jàppe rek ñu ngi la ciy woo di la ci soññ bu baax a baax a baax a baax a baax te xam ne loo ci def soxna si nga ko defal waaye loo ci def sa bopp nga ko defal ndax njariñ la yaa koy jëriñoo fii yaa koy jëriñoo fële kon ñu ngi soññ ñëpp di woo ñëpp ci liggéey bi di leen ci xaar di leen ci seenu di ci xaar seen jëf di ci xaar seen pëseef di ci xaar seen yéene jërë ngeen jëf ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala ci baaxu Sëriñ Tuubaa liggéey bi waa soxna jaaram suñu taxaa tàmbali ak mbokk taal yi mi ko seqal ñu tàmbale ko ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabil alamin te sëriñ taxa fekki ko mu jébbal ko ko ànd ko mbokki taal bi nga xam ne si moom ñoom la ko àndal ba léegi nga xam ne si mooy naal wu rëy ba nga xam ne si moom la ñu naaloon mooy lañ war a tabax fële di dortuwaaru gane yi loolaat lii àgg ñu sumb loola ba àggale ko ci kanamu sëriñ bi ba ko ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan kenn ku nekk li nga ci yéene yàlla na la ko suñ borom defal ci barkeb sëñ Tuubaa yàlla jàppandal xéewal yi li ngeen ci bëgg ngeen man ko àggale jërë ngeen jëf. bi ñu xëyee nag laata ñuy door liggéey bi jàng nañ fi alxuraanul karim ci ay kaamil yoo xam ne wàcce nañ ko fi lépp rek ñaan liggéey bi barkeel waaye sotteeg jàmm. liggéey bi nag bu noppee fédération daayira Maam Jaara bi dañoo fas yéene sóobu ci bâtiment bi nga xam ne dortoir la maanaam dëkkuwaay ndongo yi jàngee ci daara ji. kon mu woowu rek. gënante baa ngoog. gënante baa ngoog. rawante baa ngoog. nan góorgóorlu bu baax. kenn gënu cee yey kenn. kenn gënu cee yey kenn. ku gën a bëgg rek. ku gën a bëgg rek. ku gën a góorgóorlu rek. ku gën a góorgóorlu gën a rawante rek. moom yow yow yaa na ci yaa na ci la lay jëriñ. yaa na ca la lay jëriñ. yaay soññ it na nga ko bokkal. yaay soññ it na nga ko bokkal. wajatukal yawma ya ramaanu muntajiyan fawsi bi ma si tuusi duniyaaka yàllaaw